الله وكفى صلاة وسلاما على نبيه المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله كلهم أجمعين بقي جناب سنتي سنبرام سبحانه وتعالى جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla nañu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp nu gën a teg suñu tànk fakka sunu borom teglu ci pas-pas ci wax ak ci jëf te jëf yooyee lu ca nekk yéene lal ko ju sell te yàlla rekk tax suñu borom mi ngi wax ci alquran ne kum wóor ne dana dee ne ko wóor ne ginnaaw dee ab àtte moo cay topp kon na fi jëf lañ ko fi jëfloo te bañ caa boole dara te sellal yéeneem فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ku nekk la muy jëf nangu ga ak pay ga mi ngi aju ca yéeneem ba mu koy jëf yéene nag mooy ak jublu koo xam ne la muy def moo ko jublu moo ko ci jublu tanduwu ko toppanduwu ko ci kenn rawati nag ndigal suñu borom yi انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يين نك من اوب يار وايي جاب نانتا ني امنا جو رافت اك سفانام جو باخ اك ني ميلوت نام ورا مات يال نانو يالا دي ديمبل با سا سو نيك ني فاب يينا جو رافت am na borom xam-xam bu ñuy wax maaruful karxi nee na jëf ba ci ak jaamu yàlla mën naa mën na ko tënk ci ñetti xeet yu ko nit ñi di jëfandikoo nee na kenn ki ba mu koy def yéeneem dara lu dul yàlla fay ko ca kepp ab yoon la cay wut nee na kooku nag daa mel ni ab kuy yaxantu rek ku yaxantu man na xëy am man na xëy nak jooju ne rafetul nee na am na keneen koo xam ne def lépp yéene ja du dara lumay yàlla musal ko ci sawara dul ko aljanna kep euleuk neena koko mom da melne ku ne ci kliftef di jëf ku ne ci kliftef ab sangam diko ko liggéeyloo su sotale su ko nexe mu nexal ko su ko nexu du ko nex yalla ci allah musal waye neena nak amna ko xamne xam ne it la muy def lépp lalal yéene ja mooy yàlla dala tax neena koko nak mom moom newut ci loxoy kenn ku dul loxol yàlla moy daraja ji ci gëna kawe amna keneen ko xamne neena mom na nit ñi diko ñaanal nit ba nit ka dem nga ne yàlla yalla na nga def ci diw nangam neena lola ko gënal jakkalu nit di ñaanal ndax neena jakkalu nit di ñaanal ngistal man na ca am ndax leg leg ñu ñaanal nit ñaanal nit ñi ci anam yu wuté am na ño xamne buñu leen di ñaanal dañuy téy seen yaara yo xoy yagg ci lool leg leg sax ñu bind ci waye am na ñooñ nak buñu leen di ñaanal bala nga talal sax ñu ne ñaan nañ ba nopi kon bok ak wuté am na ca lool nee na moom li ko gënal te yéenu ju rafet lal ko mooy ku koy ñaanal na nga nekk ba mu dem nga ne yàlla yàlla nga def ci diw nàngam moo gën a mucc ci njistal yéene jaa gën a rafet ndax digganteem la ak yàlla mu di ko diis jaamam bii bu ñu demee ci aw Ihya Ulumuddin danañ ca fekk borom Ihya Ulumuddin nag sëñ bu mag bi dana koy tudd lu bari rawati nag masalikul jinaan nee na xaala joo gis rek imaamul Xasali ko moom nee na benn waaye ngi nii bu baax di jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ba fu ne waaye jóge fa di ko nemmiku ci di roy ca moom di roote fa moom waaye nag ndekete yoo góorgóorlu ga lépp daa am beneen jubluwaay ndax dañu xëy bis rek ne ko dëkk sàngam day mbooloo ma jëmbët nañ fa garab ba mu xëy na léegi ñu def ko yàlla di ko jaamu mu ne bërit ne da koy day dem dagg garab ga tàggaleeg nit ñi ak jaamooti lu dul yàlla iblis daal di koy feeñu ne ko ah tey nga leen a bàyyeeg seen garab ga soo ko dogee it daggate ko buddi ko sànni it mën nañoo wut leneen lu dul garab di ko jaam tee nga dellu ca sa jaamu yàlla ga rek mu ne faw mu dem dag garab ga buddi ko masala ndax nit ñi jaamu ci yalla mi wara jaam iblis na ko doo dem ca garab ga ta jaaro ci sama kaw ñu jaam ko ta yalla bi daamel ko iblis ñaan ko mu bayiko ko ba dem mu ne ko waaw yow day xam naa ne jaamukatu yalla nga way yuro dara ñi ñëwit dañ lay dis ay yitte te mënoo ca dara te ma fexe ba nga man dara dellu ci sag jaamu yàlla te bàyyi nit ñi ak seen garab ga su ko defee bis bu set dana ron ci sa ron gegenaay la ngay fanaan ñaari dinaar su doon suñ jamono dina ñaari téeméer wala ñaari junni saa boo xëy daal da nga gis ñaari junni ci sa ron gegenaay nga jël kenn du la xamal dara mu ne ah ndeke loolu mën naa am cim xelam iblis tegal ko ci ne ko garab googe ngay wax yàlla la ko gën a xam foofu bu ko sooboon mu yebal fa ngelaw mu daaneel ko wala mu yebal fa leneen lu ko fa jële dellu ci sa jaamu yàlla te saa soo xëyee rek xoolal sa ngegenaay bis bu njëkk ba mu xool ngegenaay la gis ko ca mu ne moo ne waa ji de wax na dëgg ñaareelu fan ba mu xool gis nga gànnaay la yëkkati rek gis ca gis ko ca jël def ci poosam na càll ñetteelu fan ba gisu ko ñeenteelu fan ba gisu ko ay bis gisu ko weer gisu ko mu ne na àggale sémbu ba mu doon defi dem dagg garab gannaaw lii ko doon dikkal ci dagg jéem a dagg garab la ko dikkale kon du ma sa bàyyi projet dagg garab ga iblis tasewaat ak moom ne ko da nga xotti Kontra bañ signante won mu ne ko yak ji xoti xotti yaa ne woon nga tégal ma ci sama ron gegenaay dara te fekkuma fa dara fan yi kooku iblis waaje ne ko carfal iblis ne ko carfal iblis yekati ko bam mu ko mu daaneel ko dank ci suuf jaamu ko to yalla ba ne ko waaw lutax bañ jëkkee song maa la ëpp doole daane loolu la ren nga tey ji nga daaneel ma mu ne ko sa bu jëkk ba mer ma nga àndaloon yàllaa taxoon yàlla roof la kattanam waaye mer mi nag ay diinaar dong la tax a mer jun ñaari jun yam doon teg te tiguma ko fa dong la taxa a mer am na buur boo xam ne daa génn rek di rëbbi nii rek rëbb pour rëbb rek rëbb bu sax ngir ndawal gum jëfëndiko ba yag ndox moom yoroon jeex mu mar lol seen ab tol seen ci ab xalé ñew ne xalé bi am ngeen fi ndox xalé bi ne ko déedéet mu ne ko daggal ci garab sangam ge ab doom jox ma ndax garab goko day and ak ndox ak ñam mu dagg ca jox ko mu lek naan daldi fas ci ab xolam yéene na waaw baadoole yii fi ñu mën a jële gi garab bii tool te yëguma ko woon teema cee teg loxowaay yéene ju ku jëmbët ab toolam di ko suuxat ba ku mer saña jëm sa garab ya daggub doom sax xel mi nekk ci yéeneem nekk ci nangu ko ci ñoom ndax doole doxul jàmm rek ne ko dolli ma beneen doom mu dolli ko dom doom ba forox toll be da lewet dom ken lewet dom bi forox toll mu xana gat dom bi dagay ko ci genn garab gi mu fala ko falaa de mu nu melni nii dama def ni yene bour be nang ko ci loxo yàlla wallu nu ndax bour bëggul lu forox muné tek ba yag mu amad yene ci rafet ne ko dagatal jox ma ma xol yene bayé len ko mu dagaat jox ko mu gën a neex fi moom doom bu njëkk ba mu ne ko xanaa du genn garab gi mu ne ko ah kay mu ne ko lu leen wutale mu ne ko yéene buur bee soppiku yàlla soppi yàlla na nu yàlla defal saa su nekk ñuy am yéene ju rafet ca ya ñuy taxawe ca suñu jaamu yàlla ak suñu jëflante ak suñuy moroomi jaam ñett ñi ma waxoon léegi am na kuy jaamu yàlla jaamuwul yàlla ngir yàlla dañ koy jaamu waaye daa bëgg yàlla fay ko daal kooku yàlla mën na ko fay bu ko soobu du ko fay moo yaxantu ñoo yem yaxantu nit mën naa am tey dara bu ëllëgee du am waaye ki nga xam ne day jaamu yàlla ngir ragal àjjana ak sawara dong itam kooku mi ngi mel ne kuñ yilif di ko liggéeyloo ka koy liggéeyloo saa bu liggéey ba àggee su ko neexee neexal ko su ko neexut bañ koo neexal la ëpp ci waxtoom jàll yàlla nu ca la musal waaye nag jaamu yàlla gi nga xam ne ku ca sax nekkut ci loxo yi kenn ku dul loxo yàlla mooy koo xam ne la muy yéene lépp yéene ji rafet la yéene jaamu yàlla ndax yàlla lañu war a jaamu moo santaane ñu jaamu ko yàlla noonu yàlla dafa dëgg ak topp te mu seen seytaane ak bakkan يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين